ba léegi ñu ngi fii ci Touba ci quartier bu ñuy wax Jannatul Firdawsi dara fi ku ñuy wax Salam Diop muy sikkarkat bokk ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ah, di sikkarkat bu mag waaye suñu borom dogal mu nekk fii yàgg ci lool ñu ñëwoon tey ngir xamale ko waa internet yi xam ñooy seetaan Damil TV yëpp ngir ñu xam kan mooy jëmm ji toog salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu ngi siyaare mbokki taalibe yëpp barke borom Touba di siyaare waa àdduna bépp nag waaw di siyaare biir barke borom Touba. Ah, salaam bisimilah saxaar bu jubee gardé ko ne et cetera. إله إلا بابا لا إله إلا لا لا إله إلا الله فعلا لا إله إلا الله ليس بابا لا إله إلا لا لا إله إلا الله waaw waaw maam se Ibra Faal Baay Faal bi la ilaha illa la la ilaha illa la Faal la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la te yàlla la رسول الله ilaha illallah yàlla jéggal asen sale war na moo faal jàpp jaay mbaa ngi yow faal di maye faal la ilaha illallah nasuru nafal bela ba ilaha illallah jalama Cheikh la ilaha illallah la ilaha illallah la wafal ndeysaan ndeysaan barke borom Allah sëñ Salaam Diop masha Allah ñaa ci kër sëñ ñaan lool tey moom ñu ngi ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu suñu ba ñëpp bàyyi xalifa bàyyi Fall yi waaye di nuyu seen sëñ mu xam ñaanal suñu borom ko lool na ak li mu yéene liggéeyal maam ju baax ja Seexul Xadiim mu def ko nam ko soobee waaye naal yi nga xam ne moom lay naal mu eggale yëpp ba naal yeneen i naal ba eggale ko ci barke Seexul Xadiim kon bu ko defee sëñ salaam euh, sëñ salaam sikkar si dama ko doon wala sikkar si di dama koy dama koy roy rek hmm. Sëriñ Mbay Sele laay roy sëñ Mbay Sele sëñ Mbay Sele sikkur laa hmm. sëñ Mbay Sele sikkur laa hmm. moom yàgg yàgg nga koo roy wala waaw ah, yàgg naa laa roy loolu sax moom xaw naa yàgg de sikkar si yàgg nga ci waaw yàgg naa si loolu moom lu tolloog nga ñaata at. maa lu tolloog ay fukki at ak nangam hmm, bay. yoo xam ne yaa ngi koy sikkar. waaw ah, maa ngi koy sikkar waaye ci mbay sere da nga yem wala da nga am seen kii bopp. waaw ay ma dugal sama sama sama kii bopp. Hmm, waaw nga yow say say bagage yi bopp yooyu yor. waaw ay léeg-léeg ma benn benn sama bagage kii rek. yoo xam ne sama sama yëfi bopp xam ne say kii bopp la. waaw sama kii bopp la di ko di ko di ko kii rek di ko si boole. waaye daanaka. yoo xam ne yaa ko ci yaa ko génne sa mhm. waaye daanaka moom si sëñ Mbay rek. daanaka li may def daanaka si laay commencé. Mhm. si laay yem lu bari léegi léegi nag su ma dee tudd yàlla di benn benn dugal sama yëfi bopp. Mhm. am naa sama yëfi bopp ndax da ndax da nga da nga da nga ciy da nga ciy boole xasida yi xasida yi moom daanaka dama koy durus rek waaye di ko di ko kii moom daanaka kii ma ko. waaw doo koy boole si si kër si. bi ma doog a yëngu nag xaarim gi laa daan roy moom. waaw bi ma doog a yëngu xaarim gi laa daan roy. waaw si. maanaam sëy fi bopp waaw ndax mën nga ñu cee kii di dikkal waaw loolu moom benn benn bi rek laay laay kii sama yëfu bopp sëy fi bopp waaw ñëwal si laa faal إلا may ma baax may ma leer may ma loo dootul nunga macha allah salaam macha allah allah te sëy na loolu dañu salaam ndax génn nga ci réew mi si kër si maa ngi maa ngi am ñu may jokkool mhm. ñuy waxtaan waaye dañu dañu dañoo tënkagut daal waaw loolu daal moo si kii moom. waaye li wër Sénégal moom. waaw Sénégal moom maa ngi fi waaw maa ngi dem ay kii kii moom ay dëkk ak ay kii yooyu noonu daal di fa tudd yàlla waaw. Mm, lu ah, bari sax kooku ngay roy ñuy wax sëñ Baye Sall xalaat dana am ay bis yoo xam ne dala mu la koy jox. waaw sañ bay waaw am na yu may defal fii di ma ko yëngul. waaw xam ne bis boo xam si fan yii rek jàll yëngul na ma fii fekk sëñ Masamba sëñ sàmba moo ma doon gane si. Mm. mu ñëw di ma fi yëngul. Mm. lu bari sax. ma sàmba lum waaw sëñ ma sàmba lum waaw mën naa ni ñii nii ñu bari ak ak njabootuk sëñ Bay Sala lan ñoom am si ñoom ñii ñu bari ñoom lan mooy ñii nii doomi Bay Sala comme maanaam comme ni nga comme ni nga déggee sëñ Bay léeg-léeg dana am ay programme yoo xam mu xaw a xat waaw année boo xam si wowoon na ma di ma jàngaloo dàgga dàgga dàgga waaw fekk moo fa jàng xaw a jàpp yënguloo mu fa waaw am na yoo xam si moom daanaka bu kiyee eh, dañuy kii rek ñu dem fa barkeelu hmm. waaw loolu moom bari na. sawru maam sa njaay la ilaha illa la faalu la ilaha illa la faalu la ilaha illa la waaw sawru maam sa njaay la ilaha illa la faalu la ilaha illa la faalu la ilaha illallah waaw sooru mam say njaay la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah waaw maam Sëriñ Njaay la ilaha illa Allah faal la ilaha illa Allah faal la ilaha illa Allah waaw Sëriñ maam Sëriñ Njaay la ilaha illa Allah faal la ilaha illa Allah faal la ilaha illa Allah gi da ci gi faal ko fi woo faal lay wooy faal la ilaha illallah am Cheikh Ibra Faal soro maam sa njaay war nga noo jàpp jaay faal mbaa nga yeew di may faal la ilaha illallah ilaha illallah maam si Ibra Faal si amma sambalum xaw ma looy guddi loo faal waaye diiwaan ngay tey faal la ilaha illallah maam si Ibra Faal borom dimbaloo lan law ñaan faal faal la ilaha illallah am faal nga no jàppu jaaroo mbaa nga faal di maye ay faal jërëjëf sëñ Bamba wara ma ma Amsa Njaay jërëjëf Soxna jaaraw lakke Seex Ibra Faal la baax mooy Lampo Faal baabil muridin sant naanu fa borom ñenne la gan si di borom ñabona faal yow sa baay lu na laay faal si di borom la gënoo Njaay wóolu naa la ko suura maam sa Njaay si di borom goma faal yow sa baay wóolu na laay faal la ilaha illallah maam sa Ibra faal suura maam sa Njaay bis bu saa taxawoo faal jafay doon seere borom faal la ilaha illallah mamse rafal suruh mamse nyai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Masha Allah Masha Allah Sëñ Salam Diop Masha Allah waaw kon bu rek ñu nuyu ñi nga xam te ni ñooy seetaan Damel TV ñëpp waaye rawatina suñu doom ji Alioune Cissé mu sëñ Babacar Sy nekk ca Tiwaawan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moo xam ne actionnaire si Damel TV di ko taxaw bu baax a baax a baax di nuyu suñu soxna yeeg ñëpp soxna maam Khady Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax soxna mama Saliou ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp soxna ñu bàyyi si soxna Thiané ñu ngi koy nuyu bu baax a baax si Abdou Khader ñu ngi nuyu ñëpp maam Thierno ñu ngi leen ziare bu baax a baax ñu xam ñu staff émission bi Euh, bu ko defee kon sëñ salaam. kon mhm. ñu dugaat si waxtaan wi rek. tax mhm. euh, ku mel ni sang si da ngay am ay olofal yooyu def si ñoom. Mhm, sang si waaw sang si rek xanaa moom ay léeg-léeg ma kii si tuuti rek waaye moom. xam ne ñu koy def gars yi dina aw ak yooyu. moo koy nam na bi rek. Mm, waaw waaye nag daanaka moom bëriwul lu ñu koy lu ñu koy lu koy kii ma daal daanaka tur yàlla yi moom. moom laa daal yow nga nekk moom laa gën a kii moom. maam da nga ciy da nga fayee ko. waaw waaw da da ngay waaw fi ni kay waaw fi nii de moom sikkar si moom dañ si fay moom. Ah. waaw ñëw daal bokkut ak ñëw daal si kaw daal di def si yoon. Eh, ñëw rek am na ñoo xam si ne moom. Hmm. ay am di jàmm lan. Hmm. ñu yàgg kóllëre googu. Hmm. waaye am na ñoo xam si moom fi nii eh, danañ fayu waaye am na ñoo xam si moom duñ leen fayu ndax dafa yàgg daanaka ñoo ñu teete si mbir mi. su nu yëngaloo moom dañuy dañuy dañuy dem rek. kii dem na daal yëngu kiiyaat waaye bu dee koo xam si day génn affaire moom. force ñu ñu ñu ñu laaj dara mm-hmm. waaw bun bun paré xam nga rek mom walu jangkat waaw waaw waaw man ko miskin miskin waaw man ko jox jox kay miskin ñu yoy waaw mm-hmm, lool lay ki mm. waaw man bi mbirum ci kat sey am nga ci ay jafé jafé yoy dal ngeen ci kan mom danaka mom mm. xassidaayam mm. kep ku ko dundu mm-hmm. di nga am ay jafé jafé ha ah, ka da ngay muñ ba kera la nga bëgg ex rek waye ay jafé jafé mom mën ta ñak yu tar dang ko ci am sax lan mo ci gëna a neex ci ndax da ngay dem ba sax hmm. war a yëngu hmm. maanaam du nungu sax daanaka nga téye radio bi ndax da ngay bok ak ñeneen ño xam si ñu ki la waye yeneen yëngu yo xam si moy nekk ci biir moy waral lolu moy hmm. waral tartar bi waye nak tur yalla ku ci sax rek te te tem dëgg rek sun borom mëna la jappalé su lu bari waaw waye ay tartar moom mënta ñàkk waaye da nga ci am ay mbékté tamit waaw de mbégte tamit moom mënta ñak bo bo bo amé fee kii fii tamit moom kii nga fi am rek. am fii mbégte waaw boo fii mbégte am fee safaan. ndax mhm. bànneex ak naqar ñoo ànd. Mhm. waaw boo amee fee bànneex am fee naqar. waaw waaw ndax kay man kay ñoo jot ci biti ñu wax ne ne ma salaam moom si kat am na si xaalis lool. waaw xaw naa xaw naa si kii rek. Mhm. waaw. ñu deelaat ci leen daaj rek. noon faal maam si Ibra faal illa ka gudu yaa illa laa wiiri wiiri jaari ndaari bande mi noon i muje maam si Ibra faal gudu gur laa illa laa bande mi landam lool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 Fall dunu burge bu Fall ilala danu góor si doro ndamal Baay Fall ni dodo Fall la ilaha illallah asira Fall ilala sanjo no jàpp jaay maa nga yeew Fall di ma yee Fall la ilaha illallah laxasaay boole kook faal ni gënoo faal maam si rafaal gënu gër ya bulaa irraa taalu beeg laxasaay boole kook faal ni gënoo faal la ba Daaru Salaam nuyu suñu sëriñ ba sëñ Mbàkke moom Daaru Salaam bu ko defee tamit nuyu bu baax a baax suñu jëriñ ji nga xam te ni tey këram la ñu yendu muy sëñ Daawuda sëñ Daawuda Fay ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax di nuyu soxna yi fekk ca kër ñëpp ñoom soxna Abi Fay ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di maam ñu ngi leen nuyu bu baax baax waaye noonu la nuyu suñu Ousseynou Seen suñu xarit nga xam ne suñu wëlëre waa kër googu ci moom la sosoo ñu ngi leen nuyu bu baax a baax tey fa la ñuy yendu wax dëgg yàlla ñu defal benn yu wax baax a baax a allah yal na yàlla fay leen tabarkeel leen kon bu ko defee ñu nuyu ñëpp di ziare ñëpp euh, suñ salaam. mooy baat ka tàggatoo lu tàggatoo. Ah, sant yàlla bu baax. Mm-hmm. tey sant suñ ñaari waajur. Mm-hmm. tey sant borom Tuubaa ak maam si xibra mm-hmm. ndax euh, bu ko neexoon it mënoonoo bañ a doon tuddukatu yàlla. waaye boo amee waajur bu baax. Mm. mo waral ngay doon katu yalla won nga doon jànkat xasida lolou nak ñu ngi koy santé sun borom bu baax si si tawfiixel tawféexeel ñun tawfiixel da wax di yalla euh, sun sun sun sun waajur góor ay donga la yoron mu mu mu ak cheikh isa lolou kon ñun buñ juddé mel nanen timit dañ ko wara laaj ndax wax di yalla euh, ay taalibe mm-hmm. bi dong leen bëgg doon fi ba fañ jëm lolou rek lañ lañ nam nabi bi set waaw tey tey tey tey tey waaw tey sant euh, télé bi nga xam si. moom suñu TV yi xam ni. moo moo dalal fii. Mhm. xam ni amuñu seen fay yàlla na suñu borom. Mm, fay leen barke borom Tuubaa di siyaare sëriñ boole bu baax. Mhm. xam ne wax di yàlla lii lépp moom la. Mhm. waaye suñu borom moom. boo ko lebalee ker mu fay la guddi. yal na la suñu borom fay. di jéggalu nag euh, bàyyi faa li ñu àndal ñëpp. tey siyaar baax xam ne am na fu ñu war a yëngu ji nii. te bi ñu ñëw tamit daa am fu ñu demoon. kon ñu ngi jégalu. Mm, kii sëñ sëñ sëñ sëñ maam Koro. sëriñ Xaarim sëriñ Moussa Ndiaye. Mm-hmm. bàyyi fa yi si des yëpp. Mm-hmm. xam ne ñooñu bu ñu leen limee rek lim nañ ñëpp. Mm-hmm. waaye danoo baax rek yal na suñu borom mm, lafa leen ca dàq la seytaane ndax ñoomi i kan ay sikkarkat lan mm, comme man dañuy nam na bi si mbir mi yëpp. kon yal na leen suñu borom jàpp jàppale. yoxtaawir la naa omra naa. sax la naa waa waa waa jannatu firdaws tamit jàpp nañu di sant tamit mm, waa mm. jannatu firdaws gépp xam ne yàlla jàppale nañu mën naa ne safari rek waaw daanaka moom fu ma fu ma mën a dem dañuy ànd ak man mm-hmm. moom doy na waar ndax lii su ma ko yëgle woon mm-hmm. damay bañ kër gi am nu mu demee fii am nu mu demee moo moo moo waral ñu kii ko mm-hmm. waaye nag ñuy sant baax di di di di jégalu di sant di sant Serigne Cheikh Sarr ak ñoom waaw di sant Baye Baye Ndiaye. Mm-hmm. Baye Ngóore mi xam taalibe Jenn la ñu ñu sës. di sant sëñ di sant sama sëriñ sëñ Abdou Salaam Jenn. Mm-hmm. di sant sëñ ma sëñ ma sëñ ma Sàmbulum. Mm-hmm. xam ne moom lu ne lu ne waaw lu ne mi ngi ñu koy kii. soo gisee loo xam si lu kii la sax danaan kii leen lii. lii moo baax ak lii ak lii. kon ñu ngi koy sant moom itam. di sant ahlu Jenn gépp di sant ñëpp nag barkam tubaa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw kon lii la indi ci seen màggalu Touba euh, waa Damel TV li ñu leen waxee woon ca tàmbali ba ni leen daal lépp loo xamante ni xew na ci màggal yi insha allahu rabbi dana leen indil waaye nag wax ko Sëriñ Tuubaa wax maam Cheikh Ibrahima Fall ndax maam Cheikh Fall muy bunt bi moo waral bi ñu ñëwee ren ñu def ko nii defee ko nii euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala def yal nañ ko màggal déwén euh,

المصطفى أتي يلا لا إله إلا الله إفعل وإني إنما إفعل أفنم جميع فنم جميع كبن سيغسل لا إله إلا الله إفعل وإني إنما إفعل أفنم جميع فنم جميع كبن بربك لا إله إلا الله إفعل وإني إنما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 yàlla la bu doon mag neen faal du lii du neen faal yàlla la baax may nu leer faal may nu loo dootul nu ngoo jërëjëf maa dem ba Diop ñu ngi lay ziar technicien bi mooy suñu technicien bi. réalisé mhm. émission bi def lépp macha allah. tey gi son na ci lool. Mhm, euh, dem ba léegi toogul nelawul deful dara. nekk ci mbir mi rek daw rek loo wax mu ne acca loo wax mu ne acca loo ne yàlla fay. Euh, fépp fu ñuy dégg seen yàlla ñu fa dégg Damel TV ci barki màggal gi. kon bu ko dee subhaana rabbika rabbil izzati yasifuuna. Mhm. wa salaamun alal mursaliina. walhamdulillahi rabbil alamin mucc ak mucc de. wërsëg waa ànd ak barke jaamu musiba yeeg balaa yi ñoo suñu njaboot gi bu ñu kenn moot barke yéen sallallahu alayhi wa sallam